wa inna allaha la yudiu ajra almuhsinin wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah almaliku alhaqu almubin wa ashhadu anna sayyidina wa nabiyina muhammadin abduhu wa muhammadan abduhu wa rasuluhu imam almursalin wa xaatimi nabiyin sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi ajmain salatan wa salaaman daa'imayni mutalazimayni ila yawmi ddin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم asalaamaaleykum wa rahmatullah yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziare ci bisu aju màgg bu tedd bi ñu fas yéene jàngal tey yéen diine yàlla yi sunu borom ji subhanahu wa taala wa fi l hadis laa tadxulul jannata ata tuuminu walan tuuminu ata tahaabu xaala laahu taala waxtasimu bi hablillahi jamia wala tafarraxu ki gën a teel ci jaam yi nee na du ngeen dugg àjjana mukk fi gëmu leen yàlla am du am ngëm yàlla mukk fii bëggantiwu leen moo tax sunu borom ne mooy leen ci buumu yàlla gi te bu leen tàqali ko xaala subhanahu wa taala wallazina yumassikuuna bil kitaab wa aqaamu salaata inna laa nudiu ajral muhsinin te nañ bëgg tey dénkaay na sëriñ boobu sëriñ mag boobu ñuy wax soxna Penda Diop mooy dénkaane bi ñu bëgg waxtaane ji soxna Penda Diop soxna soosu yaay ju ndaw la ci sëriñ bu mag bi ndax boroom këram bàyyi sëriñ bu mag bu ndaw bi la boroom këram baa waajur la ci sëriñ mag bi waaju bàyyam bu ndaw la bismillahi rahmani te ñu ngi bëgg waxtaanee dénkaane soxna Penda Diop kenn la ci taalibe sëriñ Tuubaa yi bu di soxna di soxna di waajur ci sëriñ bu mag bi ndax boroom këram waajuru sëriñ bu mag bu ndaw bi la mbokk Maamor Anta Sali la xaala taalibullaahi wa rasul raaji min umaari daa wal xabuul sëriñ bi nee na kii wax man Cheikh Ahmadou Bamba mii wax de man maa ngi sàkku yàlla sàkku ngërëmal yàlla akub yonentam waaw maa ngi yaakaar ci dénkaan bi may dénk soxna si ma am ci ngërëmal yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne soxna si yuusi muridatahu sawjata amihi maa ngi dénk sama benn murit bu jigéen boo xamee sama soxna baay bu ndaw la di sama taalibe nu mu tudd ñu ne pend Diop soxna pend Penda Diop xafaralaawu lana yàlla na ma yàlla jéggal man si Ahmadu Bamba man mi koy dénk wala haa ak moom may dénk dénk bi wa ma haa ana yàlla na ma yàlla faral man si Ahmadu Bamba wa an haa ak soxna Penda Diop kulla zanbin wa huub yal na ma yàlla jéggal jéggal soxna Penda Diop yal na ma yàlla faral samay bàkkaar faral bàkkaar soxna Penda Diop daan na ko yow sama taalibe bu jigéen bi yow sama yaay ju ndaw ji alayki bi sib bi sabri alayki bi sabri maa ngi lay dénk muñ yow sama taaliba bii di sama yaay ju ndaw ji maa ngi lay dénk nga saxoo muñ del muñ ndax sunu borom sunu borom subhanahu wa taala nee na inna allaha maha sabirin man yàlla maa ngi ànd ak way muñ kon nag yow sama taalib bu jigéen bi maa ngi lay dénk nga soxoo muñ ki gën ci mindeef yàlla yi nee na sallallahu taala alayhi wa sallam nee na asabru nisfu iman muñ mooy genn wàll ngëm kon yow sama taalib bu jigéen bi maa ngi lay dénk nga saxoo muñ kon nag yow soxna Penda Diop wa taqwal wa taqwa wa taqwa rabbiki yow sama taalib bu jigéen bi maa ngi lay dénk nga ragal yàlla sa boroom subhanahu wa taala waaw amoon na benn cajo amoon na benn sëriñ bu ñëwoon ci kenn ñu baax ñu woon ci benn sëriñam ni ko dénk ma aw siinii waaw xaalal ba adli asyaaqi aw siini فقاله أوصيك بوصية الله رب العالمين للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله amoon na benn ku baax ku ñëwoon ci sëriñam na ko dénk ma sëriñ bi ko déet dénkaan yàlla moo ko moom kaay ma dénk la dénk ba yàlla dénkoon ñu njëkk ñi ak ñu mujj ñi yàlla nee na ci alxuraan wala xet wa say naa naa allazina gaa yi nga xam ne otal kitaaba joxoon ne leen ay téere min xablikum te ñu jiitu leen woon gaa yi la fi jiitu woon te ñu joxoon leen ay téere man yàlla dénkoon naa leen muy ragal yàlla mu njëkk muy ragal yàlla ah ñu ragal ñu ragal yàlla waaw bi waslillahi rabbil alamin lil awwalin wal axirin kon yow it sama taalib bu jigéen bi maa ngi lay dénk nga ragal yàlla waaw daane xaalalaaw inna akramakum indallaahi alxaakum sunu borom nee ki gën tedd ci yéen mooy ki gën a ragal yàlla moo tax yow sama taalibe bu jigéen bii yow Cheikh Ndao Penda Diop looloo tax ma dénk la nga ragal yàlla waaw daane fa ahlaa maraatiba taqwallah ijtinaabu kulla ma fihi durun li amri diin wa huwa almasiyatu wal fudul yow sama taalibe bu jigéen bii maa ngi lay dénk nga ragal yàlla ragal yàlla nag bu ñu nee ragal yàlla ba ca gën a kawe mooy bàyyi ak mooy bàyyi li yàlla tere ak lépp lu yàq diine loolu mooy lan ittinaabu kulli maa fii durun bàyyi lépp lu yàq diine mi amri diin waxuwal marchiyatu mooy mooy wala fudduwal ak caaxaan yow sama taale bu jigéen bi maa ngi lay dénk nga ragal yàlla waaw ndax ragal yàlla boo bëggee bokk ci ñu gën a tedd ci jaam yàlla yi ragalal yàlla boo bëggee am wërsëg ragalel yàlla boo bëggee am xam-xam ragalel yàlla sunu borom sax nee na ci alxuraan wa taqulaa wa yaalimukumulaa ku ragal yàlla ma xamal la kon yow maa ngi lay dénk ki bi sabri wa taqwa rabbiki maa ngi lay dénk yow nga muñ ta nga ragal yàlla sa borom fi sirri ci lu feeñ wal jaari ak ci lu waaw ak ci lu ci lu sirri wal jaari ci lu lu ñuy gis ak lu nëbbu na ragal yàlla ci biir na ragal yàlla ci bitti yow sama taalib bu jigéen bii ñuy wax Soxna Penda Diop boo ko defee de fa yaxfiru lakki kon suma boroom dana la jéggal yow sama taalib bu jigéen ba tey maa ngi lay dénk duumi ala tawbati na nga sax ci tuub yow Soxna Penda Diop maa ngi lay dénk sax ci tuub ndax suma boroom neen ci alxuraan fa qultu fastaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaaran yursilu samaa alaykum midraaran wa yumdidkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara xaala subhaanahu taala nee tuub leen bu ngeen yàlla mu jéggal asmaan si taw gàncax gi naat ma yokk leen ay doom yokk leen alal dugal leen àjjana kon sama taal bu jigéen baa lay sant doomi ala tawbati nga sax ci tuub waaw bi ci aad na nga farlu ci sax ci tubit yow soxna Penda Diop wala tamit lii lii ras li siwaa rasaadi yow soxna Penda Diop bul jeng jëm ci lu ak njub loolu nag képp kuy jigéen dénkaan bi yaa ko moom ak ñun góor ñëpp nag wala tamit lii yow sama taal bu jigéen bi walla tamit lii lii siwaa rasaadi bul jeng jëm ci lu ak njub yow soxna Penda Diop man Cheikh Ahmadou Bamba maa ngi lay dénk duumi alal xumuwal na nga sax ci nëbatu wata sa turi te na sax ci suturlawu waa lan mooy nëbatu jigéen kay day nëbatu waaye jigéen du wane ay cëram wata sa turi te nga suturlawu suturlawu mooy lan sol lu mbax lu jot sëkk tey mbax ba dara du feeñ lu lu sa xar kanam bi ak sa ak sa tenqi loxo yi nanga nga suturlu ndax jigéen day nëbb day nëbbatu waaye yow jigéen yow nëbbatu woo yow foo nekk yow lañuy gis say cër da ngay seere ba sa awra yi di marqué ngay génn di jàngal xolu góor yi ci ji ci mbedd mi góor gu loo xool xolam jeng topp la <laughs> moo tax suñ mag bi ne ko yow sama taalibe bu jigéen bi wala tamit lii bul jeng lis baara saari lu jëm ci benn jub waaw bul jeng jëm ci lu ak njub doomi na nga sax alal xumóoli ci nëbatu wata sa tur ak sa turluwu kon yow sama taalib bu jigéen bi ñuy wooyee soxna Penda Diop wal tax fii dii saw tekki na nga suufee sa kàddu booy wax waaw yow sama taalib bu jigéen bi man Cheikh Ahmad Bamba maa la dénk lii booy wax deel wax ndànk jigéen kàddoom daa war di wax ndànk ndax baatu jigéen awra la kon nag del wax ndànk téere yi jàngale sariya sax yow bu jigéen nekkee fii nga ne ci biti moom mu ne ci biir gisoo ko gisu la muy wax daa mel muy neex ci yow nga ciy bànneexu loolu bakkaar la kon nag yow sama taal bu jigéen bii deel suufeel sa kaddu wal tax fii di deel suufeel sawta ki sa kaddu da aran sa giiru dund nag boo ko defee de tuskari kon sunu tuskari yi kon sunu boolam dana la gërëm lool dana la sant bu fekkee yaa ngi suufeel sa kaddu sa diir giirug dund ah yàlla mi la moom dana la gërëm sant la yow soxna Penda Diop laa tansuri ma dumti ayyan ila xayri lazi taaliluhu xadin jala ah yow sama taale bu jigéen bi bul dem di xool lu dul lu dagan loo xam ne dagan nga fàngaaral na dagan nga leer ne la nañ bul xool lu dul lu dagan loo xam ne dagan nga dafa leer amul werante deel xool lool kese bul xool leneen nag laatan suri bul xool maa dumtu ayan feeg yaa ngi dund ilaa xëri la si taaliluhu xadin jëla lu dul loo xam ne lu dagan la te dagan ga leer na kenn wérantu ko deel xool loolu waaw fii yaa ngi dund nag yow sama taal bi bu jigéen bi wàccani bii xibati aw oh, loolu nag jigéen ñoo ko waaye léegi góor ñi ci lañ bokk maa ngi lay moytandiku loo jëw ndax jëwkat bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy te jëw mooy lan mooy waxal nit dëgg li muy def nga wax ko waaye jëw man li may def nga waxal ma ko te bu ma ko déggee métti ma ma dem nga wax loolu mooy jëw waaw kon salaa sama nee naa wa fil hadis inna al asadu min salaasina saaniyatan fi l islam wa fi l quran summaha wa tasbiuha bi ak la amil dammi yonent bi ñëw na wax na ci addis nee na jëw moo gën a tar fanweeri njaaloo ci is islaam benn jëw boo jëw moo gën a tar fanweeri njaaloo bu waa ji njaaloo ki njaaloo fanweeri yoon yow nga jëw benn yoon yaa ko moo tax sa sëñ bi ne ko nii bi xibati yow sama taalib bu jigéen bi maa ngi lay tere maa ngi lay tere jëw waaw bul di jëw de te jëwkat na nga xam ne yowmal xiyaam bu ne fi nit nekkul nga tudd turam li nga koy fayee jëw gi nga ko jëw juróom-ñaar fukki julli yu ñu nangu boo ko ko joxee dégg nga du tax mu kontaan danaan la dollil moo tax nag sëñ bi ne ko waccan ni bil xibati yow sama taale bu jigéen bi moytul ma jëw na yow waaw wa takabbura yow sama taale bu jigéen bi maa ngi lay dénk bul di nganta ngantalu ci kaw jaamu yàlla yi inna laa laa yuhibbu kulla muxtaalin faquur yàlla bëggul de kuy réy réylu ci kaw jaamu yàlla yi yow soxna Penda Diop bul di réy réylu soxna Penda Diop wa asbiti na nga sax sukkóote ci noppi sëñ ma nee na soxna Penda Diop wa asbiti sukkóota saxaal ci noppi ndax làmmiñ bëri nay gàkk waaw li ngay gis yëpp làmmiñ moo ko fi indi xoolal addis bi saa su ma nekk naa Aïssa soxna Aïssa ummahatul mu'minin sunu yaay jooju xam nga yaay soxna si yonent yëpp araam nañ ci képp ku jullit taxawaay yaay lañ taxawee képp koo xam ne soxna si yonent bi la araam na ci képp kuy jullit taxawaayu yaay lañ taxawee képp kuy jullit ñooy ummahatul mu'minin kenn ku nekk sa yaay araam la ci yow te soxna yooyu ñooy sunu yaay waaw ci diine sunu yaay jooju moom toogee kii gën ci mbindeefu yàlla am ko ko romb jénn jigéen romb ko lett yi gudd wala mbub mi direeku mu ne waaye kii de mbub mi mee gudd yonent bi na ko waccul nag waccul xii xii waa xii waccul mu waccul benn lu mu deret génn mu ne ko maa ngi génn ci yàlla mi sama bakkan nekk ci loxom te moom mu yónni ci dëgg may woote ci dëgg sa lu mu deret bi bu yeesoon ci sa biir bi kenn mun a dem tee garab safara ak li may jege jege yëpp nag waaw moo de sa mbi ne ko wa asbiti na nga sax sukkootu ci noppi wata sa burra yow sax noppee nda jóg waaye yow del bul yàkkamti nag na nga tey di muñ de yow sax noppee nda jóg waccanni bii maa ngi lay dénk nga moytu alkaysi ba fen waaw waaw bàyyil fen de na moytu fen yow sama taal bu jigéen bi ndax fen kat nit dana ko fen benn fen mu waaxu ba juróom-ñaari asamaan moom fen taxaw nan man la fen diw ma fen doomi diw ak diw malaaka yëbu ñëpp rëbbu fen ki fen fen wa bu wàññeeku buy ñëw ci kaw suuf si poussière lay doon ku mu dugg boo waree ku mu dugg moom fen woowu boo waree boo faatoo ka fen fen moo moo gàddu bàkkaar ba ndax moo la rey moo sa sëñ bi ne ko wàccan bil kees ba moytul fen yow sama taalibe bu jigéen bii ñu indi ci hadiis waxat xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa bi sidq fa inna sidq yaadi ilal bir wa inal bir yaadi ilal janna wa ma yasaalu rajulu yasduqa wa yataara sidqa ataaktuba inda allahi sidiqa maa ngi leen di digal ngeen ngeen sax ci dëggu ndax dëggu day ci nit mais ci ak mbaax ak mbaax day day ñoddi nit yu ba àjjana te nit dina sax ci wax dëgg ak di jëf dëgg ak di xalaat dëgg ba sunu borom bind ko ci juróom-ñaari asamaan ña ca dëggaa ya boole ko fa mu bind siddi xuna ya yonent bi nee na wa iyaakum wal kasiba fa inal kasiba yaadi ilal fujur wa inal fujur yaadi ilal naar wa ma yasaalu rajulu kasiba wa yataaral kasiba attaque wa indallaahi kasiba maa leen tere fen ndax fen day ñoddi jumee ci kàccoor kàccoor day ñoddi nit yóbbu safara waaw kon nag sax lee nit dana nattalee di fen ba sunum borom bind ko ci juróom-ñaari la asamaan ab fenkat kon na yow sama taalib bu jigéen bi maa ngi lay dénk kes ba moytul fen war riyaa soxna Penda Diop moytul ngistal moytul ngistal ndax ngistalkat yonent bi tudde na ko bàkkaar bu ndaw a ah, ah, bokkaale bu ndaw dégg mooy jëf ngir ñu lay tagg bu ñu tewee nga julli ñaar fukki rakka bu ñu weetee mënoo julli ñaar rakk da jàng alxuraan di ko neexal ngir bëgg nit ñi la tagg ngay joxe bëgg nit ñi di ko tudd loolu la ñuy wooye ngi sal nga xam ne li ngay def lépp yàlla taxul nit ñee tax bëgg ku la bëgg am tur moo tax mu ne ko soxna Penda Diop bul di bul di ngis sal waaw ndax ngis sal ci bokkaale yàlla bokk bokkaale bu ndaw la yow soxna Penda Diop wala huj moytul aaw mooy bëgg ku la naw yow soxna Penda Diop woo suma ata moytul dégg ndéggtal ndéggtal mooy jëf waaye biig da damaa julli waay biig ma trois heures ko laa jóg julli naa dix raaka laa julli ci guddi trois heures moo tax maa ngi xam nga yow li nga wax yaa ngi koy def li nga wax li nga def yaa ngi koy wax lool mooy ndéggtal sëñ ma bi ne nag comme yow sama taalibe nga moytul ma ndéggtal wal baxdaa ak mbañeel di bañ nit ñi dégg nga yow sama taalib bu jigéen bii wa asbiti soxna Penda Diop maa ngi lay dénk nga sax sitqa ci dëggu xam nga da koo tere woon fen dëggu fen cos ah, contraire am mooy dëggu kon nag saxaal ci dëggu maa ixlaas ànd ko ku sellal loo jëf na yàlla tax bul ngi sal ak lan mu nekk ko wa nusa soxna Penda Diop maa ngi lay dénk ngay laabire koo gis sa moroomu jigéen boo gis muy def lu lu noonu nee ko kaay wuy woote yàlla ko beneen tam defeel nii bul defee nii waxee nii bul waxee nii loolu ma baax kon del laabire boo ko defee de yow soxna Penda Diop tas fari bi bixti saasi kon de danga nga jag la yoo xam ne kenn du ko am kurul yow kon nag yow soxna Penda Diop taruumi taata bilaataa bilaataa ati saw jikki tàqii sil ula bu soxla woo jaamu yàlla goo xam ne doo ko jaaree ci topp sa borom kër jaamu yàlla yi jigéen waaleykum salaam wa rahmatullah bul fent sa da jaamu yàlla bopp loo sonn sonn ci julli ak koor te jaaree ko topp sa borom kër ah loolu du jaamu yàlla jigéen kon was buñ daa baay ba aju mi ñu yedd ko asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu wasalaatu wasalaamu ala ashraf almursalin sayidina wa mawlana mahamadin al amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabiahum bi ihsanin ila yawmi ddin ayuha alixwatu almuminuun inna lillahi taala ibaadan ixtaarahum min bayn alibaad wa amaakina ixtaaraha min bayn alamaakin wa ayaaman ixtaaraha min bayn alayaam wa asmaanan ixtaaraha min bayn alasmaan wa qad ixtaara وقد اختار الله يوم وقد اختار الله يوم الجمعة وفضلها على سائر أيام الأسبوع يقول الرسول صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وجعل الله في هذا اليوم سعادة لا يسأله فيه مسلم شيئا إلا أعطاه إياه كما جاء في صحيح البخاري wa yanbaxi lana nahnu almuslimina an nahmadallah ala hidayatihi iyana li mahrifati hasil ayam baxda an addala min xablina man xablana anhu kama bayana rasul sallallahu alayhi wa sallam fi xawlihi nahnu alaaxiruuna saabixuuna yowma alqiyaama bayda annahum utul kitaabi min xablina summa haasa yowmuhum allasi farada alayhim faxtalafu fihi fa hadana allah fa hadana allah fannaasu lana tabaxun alyahuudu xaddan wa nasaara baxda xaddin ginnaaw bi sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa yéen mbokk julli di su borom def na ni ci jaami mi tànn na ci ñoo xamante ni ñoom la tànn jox leen ngëneel la leen soob muy ngëneel loo xamante ni moom la sab mu jox muy mboolem nit ñi ah yonent yi ci gën kon yenent yi tamit muhammad sallallahu alayhi wa sallam ah, moo ci gën kon toujours rek nit ñi ah, mi mbindeef yi suñu borom dana ci tànn gis ni xool nam neex mu jox leen ngëneel ya ca ya ko soob ah, bërëb bi tamit noonu la koy def mboolem suuf si pàkk yi yaatu na lool waaye am na bërëb yoo xamante ni moom la gënal ci mbooleem bërëb yépp kon muy màkkatal mu karam fi madinatu rasul di baytul maqdis mu doon bërëb yoo xamante ni moo gën ci bërëb yi ci kaw suuf ah mu wëlbati ko tamit tànnaan ci ay jamono jamono yoo xamante ni ah moo gën ci jamono yi ah, nga xam ni lépp loo xamante ni nit ñaan na ko ci rek mën na la koo may muy waxtu woo xamante ni ci biir ajjuma la nekk nga xam ni ni nit ki naan na ñaan na borom tam te seeg woowu sunu borom dana ko ko nangul kon mooy ki nga xamante ni nga néelam la yor di ko joxe na ko soobee ah la lay tax mu def ko nag moom rek moo tax mu xam ko moo moo ko xam waaye kenn xamu ko kon mu tànn tamit bis boo xamante ni mooy bisu àjjuma ah kon bi mu tànnee li nga xam ne mooy jamono yeeg bis yeeg yëpp tamit mu tànn ci bis yooyu tamit bis boo xamante mooy bisu àjjuma gëneel ko tamit ci mbooleem bis yi nga xamante ni moo nekk nekk ci semaine bi kon mbooleem bis yi nga xamante ni moo nekk ci semaine bi bis bi si gën gën cee barkeel ah mu tànn ko ci coobareem kon mooy bisub ajjuma bii ñu nekk loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bis boo xamante ni jant dina ci fenk mooy bisub ajjuma kon bis la boo xamante ni bis bu barkeel la bis bu la boo xamante ni suñ borom tànn na ko ci mboolem bis yi kon ni mu ci mboole mbindeef yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu gën ci mboole mbindeef yi doon ji nga ki nga xam ne moo gën ci mbindeef yi kon noonu la tànnee bisu ajjuma mu doon bis boo xamante ni moo gën ci mboolem bis yëpp kon mu doon bis boo xamante ni bisu barkeelu la jaam ci la jaam ñi tamit war cee góorgóorlu ci jaamu yàlla ah doon na bis boo xamante ni tamit suñ boroom def na ci waxtu woo xamante ni képp koo xamante ni ñaan nga ci suñ boroom dana la ko jox lépp loo ci ñaan te teseek waxtu woowu tamit ah suñ borom dana la ko jox kon mbir la moo xamante ni suñ borom nëbb na ko ci biir ngir bëgg jaam bi tamit farlu ci mboolem bis yëpp comme ni nga xamante ni laylatul xadar nekkee ci biir weeru koor suñ borom nëbb ko jaam ñëpp kon waxtu wi tamit noonu la ko suñ borom nëbbee ah, jaam yëpp ba nga xamante ni Euh, lan bëgg rek mooy nit ki góor góorlu bu baax a baax dellu ci suñu borom bu baax a baax baril jéggulu suñu borom baril tamit euh, salaatu xala nabi jaam yàlla yooyu yëpp te mu baril ko ngir mën a taseeg waxtu woowu nga xamante ni lépp loo xamante ni jaam bi ñaan na ko jullit bi ñaan na ko suñu borom bu taseeg waxtu woowu euh, su bu ko defee suñu borom dana ko nangul ñaan ko nga xam ne doon na ko def ak mboolem jaamu yàlla yi nga xamante ni doon na ko def bu ni wan waxtu sàngam la rek boobaa kon ñëpp dañuy dàq waxtu woowa mu doon loo xamante ni day xaw a gàtt lool waaye nag mu doon bis loo xamante ni waxtu woo xamante ni suñu borom du ko nëbb ci biir ajjuma ah nga xam ne jaam bi mooy farlu bu ko defee rek suñu borom man koo dëppaleeg mu taseeg waxtu woowu. ah kon dina yell ci ñun jullit ñi sant yàlla tamit ci bis bi nga xam ne tamit suñu borom jinni ne ko jox nañu ko muy bisu ajjuma bii nga xam ne ngeen lu mag mag la. lu màgg màgg la suñu boroom jox na ko ñu xam bis bi loolu tamit ñu sant ko ci bu baax bu baax a baax ndax doon na bis boo xamante ni ah, nëbboon nañ ko xeet yi nga xamante ni ñoo nu jiitu woon mooy yonent yi nga xamante ni du ñoo nu jiitu woon ah, seenu xeet nëbboon nañ leen ko bis bi kon xamuñ ko xamuñ ko woon. loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa ni ñun xeetu Muhammad mooy ñi nga xam ne ñooy ñoo mujj ah, ñëw ci xeet yi waaye ñooy ñi nga xam ni ñuy jiitu yowmal xiyaam ah ñi nga xamante ni joxoon nañ leen téere tamit ñu jiitu woon ni muy yonent yi ah bis bi faratal nañ ko woon ci ñoom joxoon nañ leen ko waaye nag ñu am ay wuute ba suñ borom xañ leen bis boobu suñ borom nag wëlbati ko jox na ko ñun ñi nga xamante ni ñooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñi nga xamante ni jiitu woon na soxla woon nañ ko bëggoon nañ ko lool waaye nag suñ borom xañ nañ leen ko jox nañ ko ñi nga xamante ni ñooy xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon ñu fonk bis bi lool lool lool te xam ni bis bu màgg màgg la bis la boo xamante moo gën ci mboolem bis yëpp kon ñi nga xamante ni ñooy yahudi ah, ñoom seen bis mooy samedi ñi nga xamante ni ñooy nasaraani seen bis mooy dimanche nga xam ne sa dañuy feetu di ci def seen i xeeti jàmm yàlla waaye ñun ajjuma nag mooy doon bis bi nga xamante ni. mooy bis bi nga xamante ni mooy suñu bis ñu war cee def suñuy jaamu yàlla gën cee dolli suñuy jaamu yàlla bu baax a baax kon yéen mbokk jullit ñi bokk na ci ngëneelul yàlla yàlla yi nga xamante ni jox nañu ko ah def na bisub ajjuma mu doon li nga xamante ni day far ay bàkkaar day far ay bàkkaar kon bisu ajjuma doon na bis boo xamante ni képp koo xam ne yaa ngi ciy góor góorlu suñ boroom dina far say bàkkaar loo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan ni julli juróom ah muy waxtu wi nga xam ne julli nga fajar ah jot nga julli tàkkusaan ba waxtu yi yëpp mat diggante boobu lépp loo fi def suñ boroom dana la jéggal ci ay ñaatiif suñ boroom dana la ko jéggal ah lépp loo xam ne def nga ko ciy bàkkaar ci ajjuma ba ajjuma ji di dellusiwaat tamit ci ay rëcc rëcc suñ boroom dana la ko jéggal lépp loo xam ne def nga ko ci ay ñaawteef tamit ci weeru koor ba weeru koor wa delsi tamit suñ boroom dana la ko jéggal su fekkee yaa ngi ko nag bàkkaar yu mag yi bu fekkee yaa ngi moytandiku bàkkaar mag yi muy lu mel ne rëy nit ak yu mel ne njaaloo ak yooyu nga xam ni bàkkaar yu mag la su fekkee yaa ngi koy ko rek suñ borom nee na lépp loo def rek kon bu dee ab jullit nga kon mel ne ni sa waxtu yëpp rek suñ borom da la koy jéggal ndax ju julli juróom jege na lool ah ñu ni ajjuma ba juma mu gën a sori ah ñun nag weeru koor ba weeru koor muy at kon uh, diggante bi xaw naa yaatu lool kon ab jullit moom bu góor góorgóorloo rek ah, tey jéggalu suñu borom rek tey moytu na ko bàkkaar yu mag yi boobaa kon ah, mënees na ko mënees naa doon koo xamante ni ah, ab ab téereem ëllëg dina doon téere boo xam ne bu set la ciy bàkkaar su fekkee nag yaa ngi moytanu ko bu baax a baax waaye nag bu fekkee nag moytanu ko woo dara nag boobaa nag moom say mbir dina xaw a lënt kon ñuy ñaan suñu borom ji na suñuy bàkkaar yu mag yi ak yu mag yu mag yi yu ndaw yi ak yu mag yi ak yi nga xamante ni feeñ na ak li nga xamante ni nëbb na loolu lépp tamit ñu ñaan suñu borom jéggal nu ko ah ba tey tamit ci beneen côté tamit ñu xër tamit ci jullit ajjuma jullit ajjuma tamit ab jullit tamit da cee war a farlu bu baax a baax ndax farata la farata joo xamante ni moo wotte ñeent ñaari ràkke yi moo wotte ñeent ràkke tisbaar yi kon ten war koo defee ca jumaa ja kon jullit yëpp tamit war cee gën a am ak farlu bu baax a baax ñu moytu na tamit doy ko ndax am na addis yu bari yoo xam ne ñëw na ci yonent bi sallallahu alayhi wa indi ko mu ni giñ ñaan ni ah, nit ñi dinañ dinañ continuer di joxe ajjuma ca nam waree wala suñ boroom kaste seeni xol ah te giñ ñaani tamit dinañ bokk ci ñi nga xamante ni way sàggan ñi la ñu bokk kon képp koo xamante ni yaa ngi tegale ay ajjuma toog sa kër te amoo benn ngànt koo kon mel na ni kon suñ boroom kaste na sab xol ci al iman billah ah doon nga koo xamante ni buñ dee lim way sàggan ñi mën nañ lañ cee boole kon ajjuma tamit ñu koy faral di teewe bu baax a baax ci ci ajjuma di ko julli ji ci jumaa ja loolu tamit bokk na ci màndarke ab jullit ah boo ko deful nag do téewut ab jullit nga waaye nag dinañ la boole ci nga xamante ni ñu sàggan ñee sàggan ñi la bokk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellu waxaat ni itti naa ma digal benn waay muy jullee nit ñi mu mu dem ci jumaa ji di julli ah, topp ma ah, lakk topp ma lakk ay kër kër ñi nga xamante ni julliwun mu wuutal mu wuutu leen lakk seen kër yi ah, ngir bàyyi gi nga xamante ni bàyyi nañ ko ajjuma toog seen kër kon gis na ni kon julli ajjuma lu am am am solo la ndax yonte bi sallallahu alayhi dem na ba mébét loolu ci ñi nga xamante ni te ni toog seen kër dooni jullit ajjuma jot ñu war koo dem jooxe jooxewuñ ko toog seen kër yonte bi sallallahu alayhi nee na ñoo ñu daal bëggoon naa jël ay waay yoo xamante ni ah dañuy topp seen kër yi rek di di lakk lakk seen kër yi bu ñu jullee ba noppi gis ni seen kër yi yëpp lakk na ngir bàyyi ki nga xam ne bàyyi nañ ko ay ajjuma toog seen kër te amul benn ngante boo xamante ni am nañ ko ba war a toog seen kër kon mbokk jullit yi ñu gën a fonk bis bi nga xamante mooy bisu ay juma ah, ci xeeti jàmm yàlla yi saraxeek ah ay denfileek ak astaghfirullah euh, al istighfar ñu bari ko lu man julli ci yenente beeg euh, ak li nga xamante mooy jàng alxuraan lépp loo xam ne mën ko ci lu baax ñu ko wëlbatikoo di ko def ci bis bi te xam ne mooy suñu bis ñun ñi nga xamante ni ñuy jullit ñi wëlbatiku tamit waxtu bi nga julli ki nga xamante ni tamit ci leen koy def ñu wëlbatiku tamit di ko teewe di ci bëril tamit lu ñuy ñaan lool lool ndax am na waxtu woo xamante ni ci biir ak ajjuma ji képp ko lépp lu ci waay ñaan boroomam suñu boroom dana ko nangu bu ko defee ñu continuer gën a fonk bis bu baax a baax alhamdulillahi wa kafa wa ala ibaadihi lasina safa ayuha al ixwatu almuminuun inna min tamaami fadlillahi alayna an jaxala salaatul jumaa min mukafaraati sunub asalawaatul xamsa wal jumaa ilal jumaa wa ramadaan ila ramadaan mukafaraatun ma baynahunna isajtanaba alkabair nasalullahu taala an yukafira xataayana saxaairaha wa kabairaha ma sahara minha wa ma batan wa min nahiyatil uxra yajibu an naxrisa ala salaatil jumaa wa an naxsira attaxaawuna biha fi ahadisa kasira minha xawluhu sallallahu alayhi wa sallam la yantaxina aqwaamum an waddihim aljumahat aw la yaxtimanna allahu ala qulubihim summa la yakunanna min alxaafilin wa xawluhu xamamtu an amura rajulan yusalli binnaas summa summa uxarriqu ala rijalin yataxallafuuna an aljumaa buyuudahum rabbana atina fi dunia xasana wa fi laaxirati xasana wa qina azaaba naar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما طويل لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا الرشد والتوفيق يا الله وافتح لنا كل باب كنت فاتحه للصالحين من الخيرات يا الله ورلنا كل شيء سحب وسي عرن ويسرا كل شيء تحصيل يا الله وكملا كل ما ننهو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله